salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokku téléspectateurs yu Equivox TV télé bi nga xam ne moo xewti jamono la télé numérique ñi nga am mbégte bu baax a baax a baax li koy sabab li nga xamante ni tey fas nañ ko jóg def si ko rawatina suñ jotaayu xam-xam bi nga xamante ni mooy émission bi nga xam ne moo jëpp tuddee xam sa démb ñu jóg tey seet si ndaanaan seet si kàngam seet si itam ku yàlla may macha allah bi di soxna Mariama si mu sëriñ Babacar bëgg waxtaanee waat ak moom lenn ci xam-xam. tam lépp tam jëm ci wàllu xam-xam jëm tam ci wàllu cosaan waaye tam jëm ci wàllu lasraar soxna Mariama Si mu sëriñ Babacar bisimilahi rahmaani rahim ange billahi mina sheytaani rajim waaleykum asalaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu sang bi ñu ngi lay màggal ñu ngi lay tatagal di eh, nuyu kulli koo xam ne yaa ngi teew teewlu ndax nee naa wax dëgg fa ne yàlla lépp lu ñu fi waxtaane lépp si li ma yaakaar mm-hmm. njariñu kase lañ fi fas yéene waxtaane ndax te yàgg nañoo dox ci njariñ mm-hmm. ndax nee naa sang bi Euh, ki lay kiy wax kiy déglooy mboqam te nit ñi dañoo jaaxle ba xamatuñ ñu jëm mhm. kon ñu ngi nuyu kulli koo xamante ne yaa ngi ñuy teewul te yaa ngi bàyyi xel mhm. di nuyu këru kër diine yi mhm. ëttu kër diine yi di nuyu waa kër maam borom Touba di nuyu waa kër seexal xaddim yëpp ñu ngi leen di nuyu te di leen di tatagal di nuyu waa Tiwaawan di nuyu waa Njaasaan di nuyu kullikum ndax bu ñu limee rek dañuy daal di juum ñuy nuyu ñëpp di màggal ñëpp di tatagal ñëpp naan baatu asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu maaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatu soxna Mariama Si mu sëriñ Babacar nuyoo bi am na solo macha allah yal na yàlla sama borom defal ñu ci dégg defal ñu ci topp waaye mboolem liñ fi war nar a waxtaane itam yal na yàlla sama borom barkeel ko ba kenn ku ko dégg ku ne mu doon sa fajuk aajo saa yiran wa baatina doolee ko tedd ki macha allah rabbi fi ma bëggoon ñu tàmbalee ko rek mooy li nga xam ne yaa ngi koy def ci àdduna bokk ci li nga xam ne jagle suñu borom la waaye cër la xëy na buñ la cër ba tax la sañ sañ ta bañ lay doon ci yow muy wàllu seet mm-hmm. soxna Mariama ñu gis Maria dafay seet ci anam yu ne day seet ci ndox day seet ci petaaw day seet ci xollitu gerte day seet ci yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni bëri na. Mhm. loolu tam nu mu demee noonu fi mu toll nii. waaw sant yàlla suñu borom bi subxanahu wa taala ndax ne naa don la jë Euh, ndax yàlla am na lu bari may yàlla may na lépp. Mm-hmm. kaala ndoxum póotit dañ ciy xool di ci seetal nit di xool nag ci wàllu latru surtout. Mm-hmm. Euh, latru dañ ciy xool dañuy xool ci carte mariage dañuy xool ci mbiru wàllu suuf ndox. Mm-hmm. façon yi ñuy seete daal bari na mayu yàlla la nag. du ñun day lu ñu am yàlla lañ koy sante ndax moom moo ñu may ndax bu ñu amee nag sañ-sañu toog di faj. doon jigéen toog di faj. mbiru kàttanu yàlla ak doolee yàlla rek moom la ñuy demee ci barki Seydina Mohamed. mu doon lu am solo macha allah ndokk bi nga jëlee lépp tam daal di koy delloowaat suñu borom moom mi nga xam ne moom moo am sañ mën tey def te lu fi waay di tiitaru rek moo la ko jox yaakaar naa ni kon alhamdulilah rek lañ ci mën a wax seet gi xaarul sax nit ki ñëw biir këram di ko fay pour mu seetal ñi ngi gis bu guddee yaa ngi ci tiktok bi di seetal nit ñi en gratuit ci lu tax lu tam fi mu ne yërëm jaam ñi la wala wala wane sa bopp la wala la tam parce que bëgg naa xam lu waral loolu parce que def ñëpp ñu ngi koy def waaye dañuy fayeeku waaw sant ndax nee naa dañuy doolee sant ndax ki ñu àndal mhm. di la sëñ Babacar Si mhm. mooy suñu wasila te bu ñu àndeek moom taal ndax nee naa wutuñu xaalis mhm. di seetal gaa yi eh, te it ndax nam muñu xaalis waruñu xaalis ndax def ñoo fekk ñu am suñuy teraanga seet bi ñëw wàlli si si ñun rab ñëw gane si ñu ñu ak rab ànd ak jinne ànd ak ay tuur te loolu boo àndee ak moom macha allah ti dara ndax liñ naan namuma dara kenn du ko wax dañ la koy wax waaye ñun namuñu daray seet ba war a mën a seetal nañu gratuit ndax dafa am ñoo xam ne dañuy woo ne dañoo bëgg a seetlu te yoruñu xaalis te ñooñ dañ leen war di defal gratuit dañuy war di waxtaan ak ñoom. Mm-hmm. Euh, te defuñu voyance kese voyance plus confidence. na am na ñoo xam ne ñu ngi ba Europe ñu ngi ba Asie ñu ngi ba fu ne partout dans le monde dañuy jaaxle saala te gëmuñu woon seet mhm. am na ñoo xam ne gëmuñu seetkat gëmuñu sëriñ li waral lool mooy dóorkat yi mhm. ak arnaqueur ndax loo gisee ma insisté ci kat yi mhm. à chaque fois kuy wax ak ñun da ngay dégg ñu ne dóor gi dafa bari arnaqueur yi bari ak sëriñ si nga xam dañ leen di yónnee seen xaalis te amul benn résultat mbala benn solution moo tax ñuy seet ci gratuit di dëggal ne mbirum seet am na seet am na te faj am na te lu waaye doon def ren ba déwén mu jig la rek xamal lu baax nga ca mm. te dañoo ànd ak cëru suñu borom moo tax lépp lu ñuy def rek day yëngu ci wàllu seet mm-hmm. sondeel bi dama ci seet kon taal yàlla may nañu lépp daal tarkaal la te buñ ci mm-hmm. seet ci tiktok bi sondeel la ñu ak wàllu latru latru bi mm-hmm. góor ñu bari mënuñu ko <laughs> naan sëriñ bari bokkul daal macha allah <laughs> ndeysaan <laughs> daa yaa ngi lancé défi ñenn ñi nag fi toll nii parce que ne wax dëgg yàlla euh, li ngay wax ni moom macha allah parce seet ci différentes anam bu ci ne wax dëgg a wala ñaar waaye dañu xool peeru mariage xawtil gerte sondeel ndox suuf laturu bi ngay wax ak yeneen ak yeneen yoo xam ne man xam naa ko ci soxna Mariama mu koy seete loolu tax ma évoqué question bii nii parce que coowal seet dafa bëri waaye nag defe naa seetkat moom giskat bi da est ko ëpp njariñ xanaa gisoo TikTok bi. Mm-hmm. nee naa ñoo fu njëkk toog def seet. Mm-hmm. moo tax ñëpp a ngi lëmbe daw ci internet bi ñun waruñu loolu taal xam nga la la ñu wër waruñu bës bës la ñuy wër. Mm-hmm. waaw ndax ne naa nee naa demuñu te amuñu téeméeri at te dugg dem nañ téeméeri réew. kon ñun xam nga ni seet dañuy comme maanaam don de Dieu. miracle de yàlla defal nañ yëpp man nit bu wootee ci TikTok bi soxlawul samay jël dara di koy wax. baatu nit laay seetee. Mhm. kon loolu yëpp mbirum yàlla suñu boroom la mhm. euh, kon taala na gaa yi dem jàngiwaat xam-xam mhm. ndax xam-xam mën nga koo jàngi mën nga koo resté bu fekkente ne da nga juddu judduwaale woo ak xam-xam doon woo xam-xam demal nga jàngiwaat seet nga wax nit ki loo xamante ne bu génnee sarax def gis surtout nee naa def gis man dama lay digal sarax boo ko defee baax na boo ko deful tàmpi waaye boo ko defee gis li ma la wax amul sàllaali amul wàllaali kon yàlla defal nañu ba la ñetti saabu ya dinañ ko lijjanti dossier am dinañ ko lijjanti léegi incha allahu rabbi ndax dama ciy bëgg a seet dama bëgg a yëngal seet dama bëgg a dekkal mbirum seet wan nit ñi façon seet bu ne am na wallaahi dugub sax dañ si seet ma sama dërëm dërëm yi ma seet incha allahu rabbi taala <laughs> macha allah wax dëgg yàlla dama ko fàtte te wax dëgg yàlla su ma ko fàtte loolu naa la ko indi ndax ma nga ma teg ci béréb fi mu ne wax dëgg yàlla ndax keroog la ma woo ne ma dama bëgg ngeen ñëw tournel ma émission waaye dama bëgg dërëm dërëm ngay naa leen may dërëm dërëm ma seet ci en loolu dañ koy taggaat non loolu parce que tey temps bi xat nañu te mëntoon a ñàkk moo tax ñu ne nañ njëkk ñëw rek daal di def si nii waaye bii di ñëw incha allah rabi taala dañuy indaale dërëm dërëm yi toog nga wan leen ko en direct su ko defee ma gisaat tam soxna Mariama jigéen ñëpp ay xaritam lañ donte góor ñi ay xaritam lañ secret de femme mm-hmm. moo tax jigéen ñu topp la wala lan moo tax jigéen ñu topp la ndax dégg naa la tam ngay wax ni voyance plus confidence te confidence bu ñu koy wax mooy ki nga xamante ni da nga ko war a wax sa mbiru biir mbiru biir du ku nekk lañ ko war a jóg wax te ku nekk koy du ku nekk koy waxi tamit kon jigéen ñi la topp confidence bee tax ñu topp la wala secret de famille moo tax ñu topp la. waaw confiance lañ jiital ba pare. Mhm. secret de femme door a ñëw. Mhm. ndax taala jigéen ñi dama leen yërëm. Mhm. dangay nekk ak nit ba dara dul dara mu xëy am war la. te genre góor yooyu lay bëgg di léew tool di jàkkaarloo ñoom. dina mel ni diggante Modou Lo ak Balla Gaye ndax loolu dafa ma koy seerseer ndax daf may daal di neex. ndax nee naa jigéen dangay nekk ak sa jëkkër jàppale ko mhm. ba mu dem ba mën bala mu dem ba jëg boppam daal di naagu ay mboqam daal di koy jaxasee mhm. man façon yooyu laay wër ne naa ku wër ba sonn ñëwal jàkkaarloog soxna Mariama ma indi la solution bu gaaw mhm, solution <laughs> maa yaay jaboot yaay ñëpp kon nag ñoo ko bokk déggandoo mbokk internet yi dégg ngeen soxna Mariama Sy mu Serigne Babacar ci biir li nga xamante ni sa démb nee na solution la soxla moom lay indi ci li nga xamante ni mooy jafe-jafe yi nga xam ne mi ngi am ci biir doomu aadama yi rawatina jigéen ñi nga xamante ni dañuy nekk ak nit ba dara dul dara nit jamono di dem ba nit ka doon tey la mu doon wala mu doon dara mool bëti ko daanaka bëgg a tas yaakaaram wala bëgg ko war kon bokk na ci xeex bu mu leen di xeexle moom nag xam naa ni gannaaw bi mu doon a jigéen dafa doon ku féministe parce que moo tax mu mu def loolu muy def waaye ba tey nga wax ko léegi tolluwaayu jamono dund bu cher bi nit ñi sonn nañ liggéey. Mm-hmm. sant yàlla ndax nee naa nit ñi buñ toogee bay waxaale seet nga xam ne dëkk bi toj na. te seet dafa nànk dégguma la dégguma nga ni waxaale lan. waxaale seet danga naan ni temps laay seetaan ndeysaan mu lay jooytu nga xam ne problème am na social danga ciy dox mm-hmm. <laughs> te booy dox ci social defe naa ka am dërëm ka am junni ka am fukki junni ñëpp ñëpp nga yemale mm-hmm. ndax yaa wooti social te man maay social <laughs> macha allah dëkk bi metti na ndax li tax dëkk bi metti yaa ngi naan dund avant tout dëkkuwaay moo gën a seer dund mhm. après ñu jàll ci dund dund jàll ci courant dëkk bi metti na mhm. papa Macky woo nañ ko fu ne wuyuwul daa mel déggul gars yi te dama bëgg mu déggu bu baax a baax troisième mandat mhm. <laughs> bu ko bu ko bu ko bu ko cherché déedéet bu hmm? mu cherché troisième mandat maa fi toogoon ne mooy jël euh, deuxième mandat troisième waay bu mu laal bul hmm. laal bul jege fi mu toll ni pour l'instant affaire la hmm. mhm. réew mi nit ñi fi mu toll ni ay godron la ñuy añee di koy reeree tali bi foo tourné godron hmm. kooku walaa ya troisième mandat muy dëkk bu yëngu seex bi ah bu na ko teg ci suuf 2023 ñëw gu mais bu na ko teg ci suuf bu fekkee bëgg na jàmm kon daal bu bëggee jàmm moom bu mu wax gum waxi troisième mandat. kon ci lan la war a wax fi ni ci jamono bii ñu toll. tamit ne bu seer diwlin bu seer courant bu seer na wax ci loolu ba pare. Mhm. ak ministère am bii mu war ko changer <laughs> li mu def baaxul. Mhm. <laughs> daa gëm ma daa gëlëm dañ ko gëlëmal <laughs> gars yi dañoo mystique. Mhm. dañoo mystique. ne naa fi mu toll nii gëlëmal nañ ko ba mu fal ay ministres yoo xamante ne dëkk baa ngi toj ñëpp a ngi jooy ak peccum ginnaaw bi ministre am yi na leen changer kenn baaxu ci. ah kon monsieur le président dégg nga loolu soxna Mariama Sy mu Serigne Babacar. wax dëgg yàlla surtout suñu Babacar bee toog moo wax ni nee na sa ministre yi nga fal bees soppi leen ndax bokk na ci ñi nga xam ne fi ne moom jëmale wuñ sa liggéey kanam te jëmale wuñu tamit fi ne réew mi kanam kon soppi leen delloo ginnaaw dañ koo um ok dañoo um président de la république palais bi fi dafa lëndëm crise ak mystique ak baatin loolu ca kanam dañ ciy ñëwaat. Mhm. Mhm. ndax am na at moo xam ne laata mooy falu waxoon nga ñu ci dara bi mu faloo itam ñuy wax premier ak deuxième mandat nu muy demee nga wax ñu ni deuxième mandat dina ko am tey nga toogaat nañu troisième mandat. ndax ñëpp a toogoon ne Macky Sall du gagné man leen day gagné par force. Mhm. tey nag fi ñu toll ni neex na ñëpp wàllu si waan waaye garaawul ñun ñooy nday bi njaa nday bi lan. seex waaw jaaxanaay la ñu tëddee kon dañuy sant yàlla ndax wax dara. ak def dara ñëpp daal di koy def da nga sant yàlla taal te xam ne yokkute la. yokkute la moo tax Macky Sall daal. pale ba yëpp ay mystique dañ ko miine Mm-hmm. fi mu toll nii moom ci boppam gisatul dara moom lañ jëkk a gëlëmal ci président de la république nelaw na daanu na bu yàgg <laughs> tubaarkàlla soxna Mariama Sy ñoo ko bokk déggandoo du samay wax waxama wax am na fu mu ko tegi tamit ndax nee naa toogoon naa ak moom li ñuy wax booba deux mille deux mille deux mille dix dix-huit la woon ñu wax booba ñu ngi ci beneen télé boo xam ne ñu ngi nuyu ñu ngi nuyu mbooleem nañ fa nekk ndooloon waaye ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñaanal yàlla suñu borom suñu mbokk moom suñu rakk jooju nga xam ne moo ko moomoon te génn àdduna mu nekkoon seen flash point com wax dëgg yàlla fa la ko waxee woon image boobu li ñuy wax ku dugg télé boobu di nga ko fa fekk mu waxoon wax joo xamante ni ba mu ko waxee ñi waxaat ci ginnaawam ñëpp dañoo daanu moom la fàttaliwaat léegi ren itam ñu toogaat fii di waajal 2023 jëm 2024 mu ne Macky Sall jarut muy waxi troisième mandat na ko teg ci suuf kon nag président de la république kii bokk na ci sa njaboot bokk na ci say conseiller bokk na ci nga xam ne bu toogee gis la muy gis dina ko wax waaye du tee dana jóg def la mu war a def moom ci kàttanam ak dooleem fi mu toll kon nag seeni wax itam jar naa bàyyi xel bokk na ci tam fi mu toll nii tudd nga ko léegi soxna Mariama si mu sëñ Babacar nga ni kon dana mel ni combat Modou Lo ak Balla Gaye ñu am ay kon combat yu ñu dëgg mooy Sa Thiès euh, ndogalu Sa Thiès ak Reug Reug bokk ci ki nga xam ne mooy Siteu ak euh, Papa Sow bokk yi tamit ci ki nga xamante ni mooy Balla Gaye mi nga tudd léegi ak ki nga xamante ni mooy xale Pikine bi di di di di di Boy Niang lan nga ñu mën a wax ci ñetti combat yooyu noonu ak tey jii lan moo ci mën a musal askanu Sénégal ba ba loola am ci jàmm ak salaam te mu bañ a am benn lor-lor. taala yëg nga ni mbëri dama leen yërëm yërëm seeni yaay kon soo toogee naan ay diw day daan ndeysaan stressé nga yaay ja bu yàgg. <laughs> yàlla na ñëpp am ndam ndax lépp Sénégal la taala man dama ragal nit ku am fit te ñeme yàlla <laughs> nga toog ni diw day daan te déggoo ko fenn pour lan yaay ja du nelaw doom ja du nelaw jabar ja du nelaw mm-hmm. taala bés bu ñu sa yeggee dinaa lax kii daan bu neexee yàlla ndegam neex na yàlla ci barki sañ Babacar mm-hmm. Mm-hmm. fi ñu toll boo ko waxee stressé nga rey nga nit bu yàgg te yëgoo ko <laughs> ah man de kon yéen a bokk déggandoo loolu wax dëgg yàlla te loolu moom ñun moom bëggu ñoo rey kenn wax yàlla seetloo temps yi lu doy ñëpp a dem vaar. balaa bëgg a jeexale see man vaar ga ogu oh, ba pare bu dañoo ñàkk jom ku ci dem vaar boobu ñaari fan ngay toog laxasu tuuti rek defaruwaat dal di ñëw jàkkaarloog askanu Sénégal nit ñee war a yeew nañu muus ani konkante yow xoolal demal ba ci kanam ñu ñëw ci leneen. wallaay ndeysaan sëriñ sëpp wàcc ñëw ci internet bi di koy zëmbale mhm. pour lan dama rus nañ wuti xam-xam te ñaa ngi mhm. te xam ne fii ku ku bañ dem vaar rek <laughs> cappal mais est-ce que tey jii jotul ni sénégalais yi ñoo war a muus wala ñu yeewu ñoom ci seen bopp ba xam fi mu toll nii xam ñu ràññee ci ki ñu war a ki ñu war a dem wala ki ñu war a xool wala ki mat tey ji li mu doon ci dogalu suñu borom bi. yow nga ci dara chaque jour ñu kalaame ak sëriñ diw yónnee naa ko 500000 mala 200000 keroog la bëgg a jël. Hmm. kon xam nga ni loolu doy na waar. Hmm. nit ñee war a muus comme ni nga koy waxee nañu yeewu. Hmm. nañu yeewu te yow il e temps nit ñi yeewu xam bu baax ka ñuy sékkal ka ñuy wax. ak kañu jox seen xaalis ci kàttan suñu borom. macha allah mhm. na solo loolu soxna Mariama Sy mu Sëriñ moom la ñu àndal ci biir waxtaan wi nga xamante ne moom lañ seq ak moom fas ne ko jagleel tam mbooleem ñi nga xamante ne ñooy internet yu yu yi xam ne ñooy seetaan tele bi nga xamante ne mooy Equivox TV di télé bi xew ci jamono ci biir jotaay bi nga xamante ne mooy xam sa démb mbégte lañ ci am saa su ne mais soxna Mariama ma gis tey ay bagage yu mel ne arrivage bu bees dafa ñëw wala da génne génnee arrivage bu bees ndax gis naa fi ay butéelu Evian yoo xam ne xaw ma lu mu doon waaye ci kaw Evian itam gis naa ay xeeti pot yoo xamante ne dëgg-dëgg benn bu ci ne xaw ma ci lu mu war a dox laa bëgg nga wax ma ko ñu door a jàll ci li nga xam ne mooy kii sant yàlla di julli si Seydina Mohamed ndax ne naa ñëpp feebar mhm. te bu ñëpp feebar da xool li leen di wéral mais doo xool luy seen euh, feebar mhm. bii day dox ci wàllu kàttan góor gu góor gu maanaam góor goo xamante ne maanaam battereem fonctionnetul mbiram doxatul. Mhm. ci loolu lay doxal. waaw góor gu néew kàttan ñëwal seet si soxna Mariama lu yomb. Mhm. lañ koy jaayee taala. kër ga neex rek nga daal di dégg jàmm. <laughs> xam nga xam nga loolu fi ne moom dafa dem ba sëriñ si moom. daf mel ni dañoo dañoo jël dañoo jël maanaam néew kàttan wala faiblesse sexuelle. def ko mu doon buzz boo xam ne ci àdduna kenn ku ne di ci créer sa yëfu bopp teg ko rawatina ñi ci créer produit yi nga nit ñi dañ koy lekk ka naan def yëf yoo xamante ni ëllëg a indi effet secondaire est mu war a euh, causé doomu aadama bi. amul effet euh, yooyu lañ koy defaree maanaam loo xam ne c'est naturel. Mhm. waaw base bi yëpp naturel la taala te loolu dafa am solo ndax looy jox nit itam. Mhm. muy dugg ci biiram na doon loo xamante ni lu efficace loo xam ne day def gis mais nga jox nit ki loo xam ne da koy lor loolu baaxul ñun doxuñu ci loolu li yëpp na gis produit naturel te fii lañ ko defaree ci dëkk bi ay gàncax yoo xam ne fii lañ koy bayee ko defaree macha allah mu doon lu am solo ñu gis tam fi ne gannaaw bi wàllu ngóor googu jàll tam ñu gis nga yoraat yeneen ñaar yoo xamante ni tam bëgg naa xam tam moom ci lu mu jëm ndax gannaaw tey dañoo ñëw pour génne seet li fi ne pour jagleel ko askanu Sénégal ndax nag bokk askanu Sénégal rawatina internet yi dañu wax dëgg yàlla sonn nañu jaaxle nañu feebar nañu xamatuñu fu ñu war a dem. Mm-hmm. dëgg la dëgg la ñooyee dëkk bee toj bi taala ci li muy dox maanaam ci ku am hémorroïde ballonnement de ventre. Mm-hmm. ci yooyu lay dox. arthrose da ciy dox. waa yooyoo tax biy jóg waa mm-hmm. yooyoo ko tax a jóg macha allah. te moom moom moom fi ne ni ko ni ko góor di jële noonu la ko jigéen di jëlee itam. non non bokkul góor ak jigéen bokkuñu ni ñu koy jëlee. dafa am dose bu a jël ci nekk dafa am dose bu mu war a jël waaw bii moom jigéen joo xamante ne wut nga doom fu ne. Hmm. ndax fi ñu toll am na jigéen ñoo xam ne planification familiale baa ngi toj dëkk bi ki nga xamante ne sëy na lu yàgg mënul am doom hmm. ki nga xam ne dem na fu ne wut doom te mënoo ko am boo ñëwee ay seex ngay am hmm. maa nga triplé ko ay seex ñaar ngay am <laughs> yaa wax lii soxna Mariama. am <laughs> ay kon nag macha allah. ñaata turandoo nga amagum. kan man bari na yii bari na yow yaa ci des yow tuddee nga ma te dëgg may tuddee waat yaa ci des macha allah. <laughs> ñu dikk léegi ci li nga xam ne mooy ndoxum yi nga xam ne moom la ñuy gis nii ndox mi bëggoon nañ xam ndoxu Evia bi ndoxum lu mu doon. waa ndox bi eau béni ndox moo xam ne pour wàllu faj ci barke Seydina xamante rek mhm. dañ ciy faj taala ndax ndox mi day moom lépp lay faj mhm. day faj cancer day faj diabète moom xam nga mënul wér mais da koy calmer mhm. mais day wér ndax boom euh, day faj li muy faj bari na day faj cancer day faj euh, estomac day faj tension feebar yi nga xamante yu sew sewaan ak actrose da koy faj ku am actrose boo ñëwee ñetti biteel nga ci jël mooy traitement bi taala eau béni ndoxu ñaan la lépp lay faj lu mu fekk ci yaramu nit cholestérol da koy dindi. Mhm. bët yu lëndëm da koy dindi cataracte da koy faj. ñam ku jël benn bi bala mu jeex nga commencé gis changement incha allah. Mhm. mais dafa mel ni fi mu toll nii dafa am dafa moom su ñu importé la ndax moom daanaka. waaw dafa am ñu ma ciy liggéeyal taala mhm. dafa am ñu ma ciy liggéeyal wax dëgg fa neex yàlla ndax buñu ne doolee jël ndox ndax lii dañ ko castré. waaw ah, loolu ma jaaxal. waaw ndox mi dañ ko castré mu ngi yaa koy daajal dañ ko castré doonu loo xamante ne dañ ko créé fii jógewul sax fii mhm. kon ku ci bëgg xam lu leer rek seet seeti mhm. soxna ma indi wax la lépp lu ci nekk waaw te bind nañ ci lépp itam te def nañ ci numéro téléphone bi étiquette bi taala kon loolu am na solo kon ku ci bëgg am rek ñëwal seet ci soxna Mariama pharmacie Front de Terre macha allah tubaarkàlla kon mbokk internet yi yéen a ko déggandoo noonu tamit waaw tey fa la moom laa bëgg ñu jeexalee ko door a ñëw ci message du jour bi ndax dama gis daanaka benn paquet bu vert gis pot bu ne ci wetam ak yeneen i yëf wet ga daf maa xaw sori waaye xam naa ni daal benn bu ci ne moom it nga jël ko wax ñu ci lu ci lu mu war a dox ndax tee moom bu ñu ko defee waxee defe naa ataaya tax ñuy wax tee waa taala lii ataaya la warga c'est naturel mhm. bii li koy a jóg moom koo xam ne dafa rëy ba mbuxur yi booy dox di apaat gaaw a sonn Euh, looloo ko tax a jóg cépage à naturel. Mhm. yooyu soxna Mariama da koy jaay. bii nag collagène la bii ñëpp ko xam. bii moom da lay retenir loo fekk la say 30 ans yóbbu la say quinze ans bala say 18 ans. waaw te boo doxatee doo sonn te lépp lu mu fekk sa yaram da koy dégager constipation. Mhm. lekk ñam du gaaw a rees. Mhm. estomac. ak gastric yëpp da mhm. koy faj bii nii da koy faj dégg nga. waaw vitamine boobu la vitamine yii moom ans lay may day ibbi say fes. boo ah, ko loolu pour xeetu kii ñi bëgg a kii ñi bëgg soppi soppi soppi. waaw soppi soppi ni leen yàlla bindee. waaw lii moom xeetu massage la taala day yëngu ci wàllu massage maanaam koo xam ne du ko liggéey ba sonn rek. Mhm. nga daal di koy dàmpee rek bu xëyee sa ngoo ndox ak xorom lépp lu nekkoon ci yaram ci wàllu coono xanaa xamoo taala. Mhm. nit danga war a vider sa yaram comme ni nga xam ne oto da koy dawal. dem ba mu yàgg mu vider dafa war a vider. vider sa yaram nga oyof vie de sa yaram da nga war a maase ba pare am yoo xam nga koy naan mu defar sa yaram mhm. dundalaat sa yaram daal di dundalaat sa port. maanaam entretien bi daal xam nga nit ñi amuñu jot. Mhm. maanaam taal yaa ngi daw dépasse. yaa ngi wut luwaas. Mhm. yaa ngi wut di daw di daw di dem ba doo tal si sa bopp mais nit ñi nañuy farlu seen bopp taal. Mhm. ñi nga xamante ne nag dañu seen yaram seen peau dafa bii moo lay defaraat. dellu si la. nga dem say 12 ans dem say 18 ans ndax yooyu nit ñi amatuñu jot. walaay gis ko xëy suba ba jant bi sol di daw dépasse gu mu balaa yegg si këram fekk na ak njabootam tëdd buy xëy di dem fekk na ak njabootam yeewooguñu wax dëgg yàlla góor ñi tamit sonn nañ macha allah yal na yàlla taxaw leen te taxaw mbooleem jullit lan mooy li nga xamante ni moom gisuma ko fi tamu ne fi te te sax soxna Mariama waxuma ko wanuma ko te mu war koo wax wax ñu wane ko waaw taal ñun dañoo am suñu tuur am suñu xàmb te mm. yooyu duñ ko wane ci internet bi mm. ndax dofuñu te dofaale wuñu ay rab la ñu àndal yow dofuñu te dofaale ndax yooyu boo ko wanee fi boo tëddee doo nelaw mais ko ndekki rab kay fi ne nag man nag loolu daf may métti xam nga ndax lan man damay gis sëriñ su bari ragal responsabilité nag tax na ngay dof dof lu man moom wax dëgg bokk ma ci loolu moom je suis intellectuel kay loolu du ma du ma nekk fi nangu nekk dof taala man daal Mariama man damaa jàpp ni ku yori rab dof nga. daf dafa am nag dof bu silwisé ak dof bu bu silwisé wul rek. du ñu ay dof ay jaamu yàlla lañ comme médecin yi ni ñuy fajee. Hmm. ñun tam ñun sëriñ si noonu la ñuy fajee. médecin yi bu ñu jaaxlee ci yéen lañ ñëw. médecin day faj nit mu dee sëriñ yi day faj nit du gis loolu rek la loolu rek a ñu wute la nag waaye ñoom dañuy faj ñun dañuy faj. Hmm. dañuy faj waaw tax nee naa ku te waaw wax nga dëgg nag gis naa internet fan yi ay dof yu bare nga ci. ah baax na. Mhm. gis naa ci ay def li may gis internet de. Mhm. gis naa ci ay def toog rek danga responsable naan ay damay def naa nga damay def naa ndax ku naan damay faj li te mënoo ko faj dof nga. dof nga moom doo ko nax déwén dëgg la mhm. dëgg la. nit ñi dañoo doxee ba dajee ci mbedd mi yaay nëbbatu. dootoo ko defat <laughs> léegi fi ma bëgg ñu jeexale fa mooy sëriñ si nga xamante ni dóor màtto yi ci réew mi askan wépp li ñuy jooy mooy sëriñ bi de coordonné naa ak moom jokkoon naa ak moom waxtaan naa ak moom ba yónnee naa ko sama xaalis waaye keroog ba ma ko ko yónnee ba tey jii su ma ko woowee téléphone du ma ko jot wala keneen a may wuyu. taal nit ñee ko bëgg nit ñee ko bëgg ndax ne naa nit ki bu defee ku bu defalee nit defalaat nit defe naa yow boo demee di nga xam fu fu am dara ak fu amul dara neex na mm-hmm. xam. si yoon ndax nee naa sëriñ boo xamante ne dafa nekk ci internet ratatat suba ba ngoon kooku dafa am sa jot balay ñaanal amul sa jot loo ko jox da koy dem boîte de nuit tëdd ci xale yi fan yaa ngi dégg ñaari sëriñ di xuloo ndax lan ay boîte de nuit ay caga ñooñu référence nañu ñooñu dina leen xool ba nawloo leen ma ne nawloo ma leen ku leen nawloo it na nga dem ca ñoom ndax di jox seen xaalis ñoo ko def xaalis da nga koy liggéey taala boo ko bëggee kenn du fekk fi di wax di jëfal sa bopp promotion boo xam ne mun la jëmale fenn nga bëgg a sonal nit ñi kon nag <laughs> ñoom la rek <laughs> jërëjëf soxna Mariama Si mu sëriñ Babacar xanaa rek ñu laaj la kàddu gu mujj gi ci jotaay bi lan lay doon ak message bi nga xam ne tey jii buñ la woon nga lancé ko nga yónnee ko tey askanu Sénégal ndax soppe yi am di jàmm yi xarit yi dëkkandoo yi mbokk yi ak mboolem ñi nga xamante ni ñi ngi lay seetaan fii nii à travers Equivox TV ci émission bi nga xamante ni mooy xam sa démb ñaataala nañu sant yàlla di julli si Seydina Mouhamed nee naa fi ñu toogoon ren ba déwén ba tey ña nga fa toog te ku ñëw fekk ñu foofu ba tey kon li ñuy mm-hmm. def ragal baa ngi sàcc bi du maa ngi kon nag ñu ngi sant yàlla di sant itam ñi nga xam dañoo wóolu mm-hmm. ñi nga xam dañoo doylu ginnaaw yàlla ak yonenteem bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ndax nee naa taala nga am benn nit moo ma gënal am fukki nit ndax benn nit boobu moo indi keneen su gisee mhm. keneen kooku mooy indi keneen te loolu rek moom moo ci nekk xeetu sant yàlla leneen li nga xam ne maa ngi koy dénk bi metti yi mhm. mal mhm. ko askan bi gestu yit ñi ko yaakaar ndax yaakaar dafa foor yaakaar a taxoon nit ñi fal ko kon bàyyi ñooñu xel mm-hmm. ñuy sant ñëpp di ziar ñëpp di màggal ñëpp di sant it waa Equivox. Mm-hmm. Equivox Vox ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ci jamono la. waaw dëgg du mm-hmm. sa loxo fii rek la am. waaw ah, poñe ko téye ko mm-hmm. ni jàkkaarloog moom nii ah courant coupé. ñu di def émission yombul kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla na leen yàlla defal jàmm. yàlla dooli seen xéewal. ñu nuy sa patron nu mu tudd. waaw El Hadj ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay màggal ci barke Seydina Mohamed Talla ñu ngi lay sant di lay gërëm. di sant ñëpp di gërëm ñëpp naa leen ba beneen yoon ak Equivox rek du yomb macha sant ko gërëm ko bu baax a baax ñaanal ko yàlla suñu borom dolli ko taxawu dana guddal guddal fanam gën a wéral ay cëram te yeggali mbooleem yéen yi nga xam ne tam naalal ko askan wi waaye naalal na ko mbooleem njabootam tam ndax wax dëgg yàlla nit ku baax jigéen ju mën góor doon jigéen ju jàmbaar jigéen ju bëgg boppam itam macha allah bi di ko ñaanal bu baax a baax suñu borom dolli ko taxaw waaye itam di sant bu baax a baax mbooleem ñi nga xamante ne rek ñi ngi suivre à travers euh, télé bu mag bi nga xamante mooy Equivox TV di leen di wax ni tey te télé bi nga xamante ni yéen a ko téye ci seen loxo tout en numérique fii rek la daal di amee fii rek la xewee muy Equivox TV den jox dig daje incha allahu rabi taala ci suñu yeneen jotaayu xam-xam ak xam sa démb fii ci biir Equivox TV sant bu baax gërëm yi tamit suñu équipe technique bi ci cadrage bi ci montage bi ci réalisation bi sant ñëpp gërëm ñëpp jox leen dig daje incha allahu rabi beneen yoon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.